ab dëkk. kenn du ci fal nit par émotion. ça c'est malheureusement dafa y a trop d'émotion dans ce pays da ngay nit wala nga bëgg nit lépp lu mu def rek baax na. baa nga yërëm lu mu def baax Sénégal toll na foo xam ne fal président dafa jot ci programme. Mhm. boo xamante ne dina permettre tey ëllëgu Sénégalais yi ñoo xam fu ñu jëm parce que nous avons un problème d'emploi. tey ndaw ñiy faatu ci géej gi kenn xamul nu mu toll nous avons la jeunesse la ressource humaine nous avons les terres cultivables am nañu ndox mi tey suñu autorité étatique yi jiite réew mi seen volonté bi ma jàpp ne moom lañu ñu waroon def pour développer Sénégal dëgg mooy dem ci mbay mi concentré wu ci à cent pour cent parce que tey benn dëkk mënut a développé wu te amoo mbay mu taxaw ñaare ba mooy par rapport à nos ressources naturelles et minières depuis à nos jours chaque jour on nous parle de lapidation de nos ressources mais tey am na ay points focaux yoo xamante ne foo ko yoo xam ne tey suñu politiciens yi jiite réew mi ak ñi ko bëri jiite ci loolu la ñu war a taxaw def ko débat accentuer ko environnement bi changé mais malheureusement boo demee ci plateau télé yi du lundi au dimanche c'est le même débat c'est la même euh, euh, euh ligne éditoriale politique politique et pourtant am na ay points yi saa yoo xam ne moo ëpp njariñ yoo xam ne askan wi war nañ ci mën a sukkandiku mm-hmm. am na lu mu wax léegi. mais appel à l'insurrection bi suñ ko woote woon fii Sénégal yi dégg nañ ko. Mhm. toog na fi ne danañ dem fekk Macky Sall def ko ni ñu def Samuel Doe toog na fi ne gàtt sa gàtt sa. émission mënul jeex non non non dañuy waxtaan no non dañuy waxtaan am ah, naa droit joxe sama appréciation par rapport à ses propos bu jeexul tamit mën nga kii c'est pour dire que tey boo ànd ak nit. da ngay nangu ay faiblesse am. nous allons le déloger la. xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw il est tenté d'accuser quand même il est tenté d'accuser non accusé wu ma les Sénégal laa yeewoo. Sénégal nga ñëwoo lii xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw may ma ma ñëw. tu n'as ma ma de programme alors que man Macky Sall la. côté programme il est le candidat de l'histoire pour yow mais je te ah, mais xalaat laa joxe rek. on parle pas avec émotion. on parle avec programme on parle avec vécu. may ma bi mu am benn leader politique bu am ci Sénégal. s'il te plaît s'il te plaît loolu yow la engagé. soxna si politique ñetti ñi ñoo ci dugg. ki xiif dugg ki tiit dugg ak ki bëgg réewam dugg ñun dañoo ñor table gis nga yi ngay def non ñun fayuñu ñu pour ñu ñëw ci plateau yi Ousmane Sonko fayuñu pour ñu wax yaa on parle par avec des principes voyez booy wax da wax fondement te ku ci nekk ñun war nga moytu suba say doom ñu naan leen sa papa nii la meloon wala sa yaay nii la meloon. loolu sëñ bi leçon la Ousmane Sonko n'a jamais appelé à l'insurrection. la Macky Sall waxoon Abdoulaye Wade waxu ko. nous allons le déloger du palais Macky Sall Abdoulaye Ousmane Sonko musu ko wax. xam nga dama wax léegi uh-huh. na ay dossiers judiciaires teg ci concam toog fi ne président Macky amul sañ-sañ toog fii naan dinañ respecter décision judiciaire ne le président Macky Sall. yëpp pour pour xas Ousmane. sëñ bi sëñ bi sëñ bi attends s'il te plaît. mais mais émission bi jeex na il n'a il n'a qu'à réfléchir. compliqué la non c'est des accusations quand même. je suis je suis un Sénégalais. né au Sénégal damay joxe sama avis ci Macky joxe sama avis ci Ousmane joxe sama avis sama avis ci Abdoulaye Wade loolu yow la engagé s'il te plaît sëñ bi avec xoolal si un peu de un peu de lucidité tamit quoi s'il te plaît un peu de lucidité sama xalaat laay joxe mënoo maa tere joxe sama xalaat pour dire que tey il faut que les politiciens reviennent à la raison on ne peut pas on ne peut pas kii sëñ bi sëñ bi s'il te plaît sëñ bi ngir jëmee sëñ Tuubaa la voilà sëñ bi man man xaaral xaaral s'il te plaît. waaw waaw euh, d'accord may ma rek waaw. mais El Hadj. mais il faut qu'il accepte aussi mais il faut le laisser terminer il faut qu'il accepte. ñëw ci plateau yi ciy jàpp doomu jàpp xas doomu jàpp non dañoo war a bàyyi xas Ousmane Sonko. non non El Hadj il n'a qu'à amuñu ñoom amuñu benn leçon de morale bu ñu jox Sonko. non mais attends sëñ bi c'est pas comme ça. tàggatoo dañ ne maag moom a yem maag moom a yem ci plateau bi. il a le droit de dire j'ai le droit de de de dire ce que je pense. non non je dis ce que je pense j'ai le droit de donner mes avis. El Hadj s'il vous plaît bàyyi ko mu terminer. c'est ça on n'est pas terminé par des par la vérité pas d'insulter une personne. non attends vous m'avez entendu insulter. vous m'avez entendu insulter. mais boo nee Ousmane Sonko non j'ai pas insulté. yooyu c'est pas la réalité. sëñ bi respecté sa baalaat bi nag. non c'est pas vrai. non respecté sa baalaat. bu dee ma saa j'ai pas insulté est-ce que vous m'avez entendu insulter sur ce plateau non vous m'avez entendu insulter sur ce plateau Ousmane Sonko n'a jamais appelé à l'insurrection pas insulté bon léegi rek maa ngi jégalu ba ba daaneel maa ngi jégalu sene maa ngi waaw may ma waaw may ma may ma maa ngi jégalu Sénégalais yi may déglu yëpp bu fekkee su fekkee su fekkee def naa njuumte maa ngi koy jégalu di jégalu kajoor bu baax noo ko jox sa waay. non non non je sais dama koy jégalu non non dama waayam waay jeex na non. attends damay waaw waaw dama lay jégalu. s'il te plaît sois professionnel dama lay jégalu di la jégalu donte njuumte am na.